Cheikh Dieng li tax ñu dàq ko dafa def loo xam ne méngoowul ak sologan bi ñuy wax jub jubal jubanti waaye du caagi ne Cheikh Dieng dafa deful li ko war dafa def loo xam ne méngoowul ak li nga xam ne loolu la waa projet bi woote rawatina kii di Ousmane Sonko ak Jomaay Cheikh Dieng nag nit la koo xam ne yàgg naa rejoindre Pastef yàgg naa def dooleem ci Pastef jàppale leen ci côté bu nekk waaye nag dafa am loo xam ne moo jiitu lépp mooy slogan bi muy bii di jub jubal jubbanti loolu képp ku ci jaarul moo xam ci Pastef nga bokk moo xam feneen nga bokk dañu lay génne ci li nga xam ne mooy projet bi xam ne bi dara du ko yàq dara du ko gàkkal dara du ko tilimal kenn du leen tuumaal dal leen ak jàmm ci seen bii di IYAT TV ñu ngi leen di nuyu du leen jaajëfal di rafetlu ànd beeg chaîne bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen kii di Cheikh Dieng dama ciy dégg wax yu bari nit ñi di wax naan li tax ñu dàq ko kat dafa jël xaalisu réew jënd ci oto bu jar quatre-vingt et quelques millions alors que mbir yi demeewul noonu Cheikh Dieng dafa def loo xam ne peut-être leerul ci li nga xam ne maanaam mooy lenn ci doomu adama yi te ku ne xam ne ne ñii fi nekk dañoo woote lu leer transparent lépp looy def dafa war a leer ne jant mais waroo def loo xam ne nii dafay am ay lënt-lënt wala boog ñii mën nañoo comprendre ñee duñu comprendre ñii doxuñ ci loolu lu ñuy def dafay weex tal tal tal ñëpp teg seen bët Cheikh Dieng li waral ñu dàq ko yéen ñëpp xam ngeen ne am na lenn ci ay partenaire am yoo xam ne dañ ko jox benn oto bu jar quatre-vingt et quelques millions te loolu dafa xaw a niroog loolu ñuy wax corrompre maanaam corruption daf ko xaw a niroog te ku ne xam ne parti bi di Pastef bokk na ci li ñu jaayoon ci li nga xam ne maanaam mooy euh, seen projet mooy lii di guerre dañ ko fas yéene génn ci réew mi ba mu set wecc rawatina ñi nga xam ne ay inspecteur des impôts et domaines la ñu woon muy Ousmane Sonko di Diomaye nga xam ne façon corruption bu nekk jot nañ ko mais dañ ko rejeté kon buñ mayee gis ku bokk ci ñoom jël benn oto boo xam ne da lay wóor ñi ko ko jox leen dong lañ ciy xaar mooy maanaam ay récompense leen lañ ciy xaar mooy rokki mi rokkaan loolu moo waral ñu dàq ko mais du caagi ne dañ ko dàq ndax dafa def loo xam ne nii maanaam dafa jël alalu Sénégal dal ci jënd oto bu toll noonu déedéet demeewul noonu beneen bi ci topp ñu gis yéen leen ne ay journal ci ay journal manipulation ñu bind ci wax ne Cheikh Dieng mii kat li mu def dafa ëpp ndax alalu réew mi la jël jënde ko ab oto naan ki nga xam ne moom la wuutu muy Mamour Diallo bi nga xamee ne ñëw na ci foofu di ONAS même biñ ko joxee auto service daf ko gàntal ma ne ko Mamour Diallo bu koy tëkkaleeg Cheikh Dieng da ngay damaa yaakaar ne yéen da ngeen a dof ndax Mamour Diallo lan lay dolati alal ci àdduna ku sàcc 94 milliards jot a xam waxuma ne liñ a xam mu sàcc 94 milliards ci lu ko wéral koo kooku jàpp naa ne lan lay doy ay auto service lan lay dooy sax salaire maanaam foofu mu nekkoon ku ne xam ne du méritam Macky Sall moo ko fa defoon pour récompenser ko rek mais du woon mérite sax ndax amu ci xam-xam Cheikh jee bi nag foofu di ONAS loolu la xam loolu la maîtrise ñu teg ko fa mais nag li ko fa yàqal mooy njuumte loo xam ne def na ko ndax oto boobu normalement waru ko woon jël ndax mbirum corruption lay firndeel loolu te nag lii day wane ne li son excellence Bassirou Diomaye jaxaar Faye waxoon ne man fii ma toog nii day ay benn pexe tegu ma fi kon du ma def benn pexe pour toog fi ndax boo neexoon mu ne Cheikh Dieng mii kat jàppale woon na ma bi ma nekkee ci jafe-jafe ndax bi mu rejoindre Pastef sonn façon critique bu nekk jot na ko façon wax ju nekk jot na ko élection législative ngeen gis liggéey bu am solo bi mu def bu ko neexoon Diomaye danaan ah naa suurale naa suurale électorat bi nga xam ne Cheikh Ndiaye am na ko mbooloo mi nga xam ne Cheikh Ndiaye am na ko influence bi nga xam ne doon doon na ko def mais xoolu loolu yëpp dañ ko limoncé dàq ko parce que li mu def méngoowul ak ñoom li ñuy woote donc kon ñi li lu woo lu leer nañ la ñuy woote jub jubal jubanti bi amul parti bi laa bokk amul parti bi bokk képp ku def lu méngoowul ak dëgg méngoowul ak yoon dañu lay dàq te amul négocier amul masla amul fii laa bokk ku ne xam na ne Cheikh Dieng nii Sénégalais yi bëggee Ousmane Sonko noonu la ko bëggee te ku jege woon Ousmane Sonko la ku xam Ousmane Sonko la mais tëriwul bis bi dàq ko jotee dañ ko dàq ndax li mu def méngoowul ak li nga xam ne maanaam mooy lii yoon beneen bi ci topp dinaa wax ci jëmm jii di Cheikh Yérim Seck bi nga xam ne damaa yaakaar ne moom dafa dof wala dafa wér dafa Cheikh Cheikh Yérim Seck nit la koo xam ne àddunaam bépp jàpp na ne amul lu mu manta am jaare ko ci manipulation yéen ñëpp gis ngeen émission bi nga xam ne kii di Pape Ngagne Ndiaye dalal na ko foofu foofule ci TFM lam fa wax lépp aba zedd du lu mu gëm parce que nag façon manipulation bu bees bu mu génn la parce que wax nit ki bu fekkee da nga ko bëgg a manipuler da jaar ci ngëm-ngëmam gis ngeen muy ñëw di wax ay yonente beeg ay bin nangam ak di wax waxi charette yoo xam ne gëmul dara ci li wax gis nga dafa bëgg lenn ci ay sénégalais mu jaar seen pas bañ jox ko nopp gis nga prochaine émission bu ñëwaatee dana wax loo xam ne ay balla te nag Cheikh Yérim sekk ku bañ Ousmane Sonko la te ku ñàkk gëm di yàlla la ku ñàkk gëm yàlla mooy Cheikh Yérim sekk ndax da ngay gis benn haine bi muy waxee ci Ousmane Sonko am na benn instant kii di Pam nga ne ko Jomaay day nee na day sant Ousmane Sonko ndax moo ko jox pouvoir bi mu ne ko Ousmane Sonko mënut a jox kenn pouvoir ndax mënoon joxe pouvoir jox ko boppam ndax ba muy xeex xeexalul ma Samba wala ma Demba boppam la doon xeexal daan nguur yàlla moo ko joxe indi aaya ba man ko xanaa da ngaa fàtte wax yonent bi boobu ngay wax naan ci ngay jéem a convaincre nit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne man lam yaskuru naasa laa yaskurullah ku santul nit doo sant yàlla kon Cheikh Yérim Seck soxor ak bon ak iñaan gi la jàpp ba tax nangu woon nangul Ousmane Sonko loolu yow la engagé yow la concerné mais li am Sénégal yi xam nañ ko te xam nañ bu baax kan moo fal kii di Diomaye bàyyil fen ak tappaleeg manipuler xam nga naafeq dafa baaxul te Cheikh Yérim Seck dafa naafeq émission bu ko invité dana weddi waxi daawam bëgg a dëggal waxi renam loolu nag jikkoy naafeq la naafiq dëgg moo Cheikh Yérim sekk fii la taxawoon émission Maïmouna Ndour Faye ne amul benn nit bu bokk Pastef boo xam ne da nga bokk ci élection yi taxaw dëggal ko daane maa la ko wax daane mi ngi suñu kanam àgg nañ ci loolu li mu waxoon amul Pape Ngagne Ndiaye laajal na ko ci loolu mu weddi war ko daane waxul loolu taxawoon na fii daane Ousmane Sonko donte dañ koy atte selon la loi quatre-vingt-quinze pour cent sénégalais yi di dee dañ ko war a atte parce que man laa gëm loolu mooy yoon ñun laajal ko ko encore une fois mu ne waxu waxuma loolu kon kii kan la yàpp laay laaj sénégalais yi moom non seulement respecté wul boppam respecté wul Sénégalais yi parce que ñàkk a sa bopp mënut a weesu nga fen fen yoo xam ne da wóor ne les vidéos sont là da lay wóor ne émission yi ku dem tàppe YouTube da ko fa fekk nga taxaw bëgg a weddi wax jox xam ne yaa ko waxoon te yaa ngi fi lépp ngi fi man Cheikh yaakaar naa ak ñeme yàlla àgg na ci bu gisoon yàlla ñeme naa taxaw ne ko yàlla lii nga wax ne maa ko defuma ko donte yàlla moo ko gën a xam lépp parce que dafa am benn catégorie mën a fen boo xam ne boo ci eggee amatul looy jombatle sa bopp mën wax fii léegi ay wax weddiwaat sa bopp léegi te Cheikh Yérim lay dox li ma ci gën a soof nag mu naan kii di Ousmane Sonko ak Diomaye dañ dem jàngiwaat kàllaam ak tubaab parce que dégg li ñuy wax ci tubaab neexul rafetul te xam nga ne bu waxee loolu fen ak soxor ak iñaan moo ko jàpp mais Cheikh Yérim Seck Ousmane Sonko nawluwu ko ci tubaab moo ko raw ci njàng foofu toogee di làkk tubaab lu ma 10 minutes te Ousmane Sonko gis nañ ko plusieurs mii moom dama koo jëlale gis ngeen discours yu am solo yi mu def France barki dee moo Ndiaye salle boo xam ne ay xonq nopp rek a fa nekk kooku boo sañee taxaw ne kooku déggul tubaab wala boog tubaab bi mu wax rafetul neexul damaa yaakaar ne xolub kañaan moo la dal ak coxor gis nga en gii ñu en régime bii nii loolu seen bopp lañ ko def mais a bëgg a bopp ñoom ko jéem a bañ defoo ko ma koy def maa ngi dégg naa Ousmane Sonko maanaam ci gàttal li gars yi wax naa Ousmane Sonko day yàqal jomaay nga ko jéem dëggal naan Ousmane Sonko na bàyyi li muy def tana maytu France naan am na foo xam ne wuru faa tudd naan ay coowal caaroy 44 parce que Ousmane Sonko parce que Diomaye mënut a am ay accord ak waa France ba pare mu taxaw di wax waxu caaroy 44 bay tiwite kon yow ku ne xam na ne Cheikh Yérim Seck sa manipula sa manipilation bi ngay def nii Sénégalais yi xam nañ ko yow nag yàlla daal defal da ngay fenkat boo xam ne amoo barke siiw nga waaye amoo barke barke boobu nga ñàkk nag leen donga moo la ko xañ mooy mën a fen ak ñàkk gëm yàlla waaye bu fekkoon ko xam sa bopp nga yaakaar naa di nga tello dellu ginnaaw dem toogi te xam ne Sénégal yi li ngay dabu xam nañ ko mooy crédibilité bi nga xam ne amoon nga ko ba pare ñàkkaat ko parce que da ngaa nekkoon ko Sénégal yi naw la jox la cër ngay fen a fen yow pour l'instant yi sax yow yaa ngi ci pen yaa ngi ci sursis yow parce que da ngaa fenal kooku ñuy wax capitaine Touré ba mu porté la plainte ñu amande la 5 millions dóor la 6 mois avec sursis yow jàpp naa ne say wax képp koy gëm sax moom gëmul boppam parce que fenkan nga fii nga bind livre fenal ay gor yu tooy yu set wicc fenal Ousmane Sonko te yow damay wax ne yow lépp lu bon ci réew mi def nga ko yow bu dee viol violé nga fi sa doom violé na bu dee sosal nit sos nga fi parce que dafa am loo xam ne loolu la régime yi fi nekk daan doyee mooy nga leen di defal doxal ay mission salbuloo ay fen parce que bu ngeen xoolee Macky Sall yow ni nga nekkee woon ak moom mooy di fen pour bëgg a convaincre Sénégalais parce que Macky Sall dafa jàpp ne Sénégal dañ lay bàyyi xel parce Sénégal dañ maa bàyyi xel parce que Macky dof la woon lépp lu waay ne mën la nga nekk di ko doxal ay salle bu loo ci Maimouna Ndour Faye émission boobu wala TFM saa boo génnee la Cheikh Bara Ndiaye doon wax saa bu solee costume bu bees fen-fen yu bees Cheikh Yérim Seck moom noonu la ko yàlla bindee damaa yaakaar ne inspiration fenam moom ci ak colom lay dépendre saabu bu sancee ca lay dàq fen amul benn crédibilité amul benn dignité ci boppam mën naa fen mën naa sos du wax dëgg te gëmul boppam ndax ñàkk gëm sa bopp rek mooy ngay wax sa waxi daaw ñu ne la wax ji yaa ko waxoon daaw nga ne waxuma ko woon daaw wala boog weddinaa ko wax ji ma wax ren laa gëm kooku doos gor doob jullit imposé nga ñu lu ne nekk bëgg ñoo gëm la sa bopp tey li la dese mooy nga bëgg a transformer sa bopp sa bopp ab imam wala oh, wala maanaam ab oustage loolu du jàll ak sénégalais ça ne passera pas sa manipulation bi génn ci bu dee ay oustage am nañ ko moom doy te ñoom lañ gën a gëm yow li ngay wax gëmoo ko yow da bokk ci ñi alquran di wax naan a taamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum wa tansawna anfusakum maanaam da ngeen a maanaam da ngeen bëgg a def seen bopp ay sondel yoo xam ne da di leeral nit ñi di lakk seen yow genre boobu nga li ngay wax ci ay dëgg gëmoo ci dara doo ci def dara li wax ci dëgg gëmoo ci dara doo ci def dara man fan la fi ma la simileem sax yow nan ngay violé nit bañ condamné la ngay wax ci violub jàmbur naa Ousmane Sonko nangam nangam man boobu laa pare ci yow xam ne doo nit yow yaa ngi violé viol gu leer adduna bépp xam ne yaa la yow sa ngor warul woon may sax nga toog ci plateau di tudd luy niroog viol bay tudd Ousmane Sonko man ca laa pare ci yow waaye nag sa manipulation bi du jàll génnal ci yi nga nekk te xam ne ku soof nga te ku waaye di nga ko ñàkk xorom nga jërë ngeen jëf